Yaya Diallo président écurie écurie de lutte Malika Mbolo donc nekk membre de l'ARES bokk ci comité directeur de l'ARES l'essentiel li ma gënoon li ma bëggoon wax ñoom ñoo wax nañ ko daanaka mais man je lance un appel à toutes les écoles et de lutte du Sénégal yu nekk dans les régions ñu ñu affilié ci ARELS ARELS mooy association responsable école et de lutte du Sénégal pourquoi parce que on va aller vers une fédération ministre bi dafa sas kii euh, le président CNG pour mën a mën a liggéey durant ces deux ans là pour ñu mën a dem fédération donc fédération pour def ko il faut que toutes les quatorze régions du Sénégal fu fépp fo école et écurie nekk nekk war nga mën a affilier ci ARELS. maintenant le président de la république maa lay lancer appel dama bëgg nga bàyyi xel ci fléau bi nga xam mooy xew muy mbëkk mi Barça wala Barsax li ci gën a bëri c'est la jeunesse qui part. donc les VIP lutteurs VIP yi nga gis ni ya gaare seen kàrkar yor seen visa visa dama ko ñëw ñooñu ils n'ont rien à voir maintenant la les le que vous les avez octroyées octroyées euh, soi-disant les les les lutteurs euh, VIP en activité donc dama buggoon nga bàyyi xel ci les petits lutteurs petites catégories yi nga xam ñoo nekk ci banlieue bi am métier di bàyyi seen métier di topp ci lutte bi pour mën a teral seen waajur. mais pas lutteurs yi benn la wax. non c'est-à-dire lutteurs yi promoteur nag ngay nag ngay euh, subventionné promoteur bàyyi lutteur promoteur kan lay promettre kan kan lay kan moo tax promoteur di promettre mais tu vas promettre les lutteurs maintenant celui qui gère les lutteurs ki nga xam moo leen jëndal assurance dina leen affilier chaque chaque année dix mille francs chacun donc boo xoolee benn écurie bu am trente lutteurs chacun dix mille francs d'affiliation donc kooku ça ça fait 300000 300000 par 160 160 écuries nous au Sénégal donc loolu c' est budget ñi jot a affilié léegi ñooñu seen seen compenser donc vraiment je m' excuse